ñu dellu si waat fii si Star TV ama Gambia sport ama Bantaba euh, fourth edition bu sport Bantaba euh, fii si réewi Gambia euh, ñu far nag di waxtaanee lépp lu nga xam ne rek si wàllum lii di tàggat yaram fii si biir lii dema réew mi comme ni ñu ko waxee rek hundred percent Gambian sport pour rek gis ne dinañ dekkali sporti Gambia ba tax na nag every week far naa di ko am ak kii yema Mr Bathie Njie ñuy waxtaanee lu nga xam ne rek moom mooy demande bi lu askan bi gën a soxla Euh, tey nag si biir waxtaan bi euh, dinañ waxtaanee FIFA président bu nga xam ne ñëw nag si réewi Gambia euh, te nag géej nañoo gis FIFA président ñëw réewi Gambia since 1977 la loolu xewoon ñu gis ko nag mu ñëw 2019 si leadership kii Lamin Kaba Bajo suñu bàyyeekoo foofu tamit dinañ dem xooli vétéran tournament bu nga xam ne moo xewoon foofu sa Sénégal bi duplex Elton Jim bi si gannaaw mu nekkoon lu nga xam ne lu rafet la ñu gis fa ay ñu nga xam ne borom nomba tànk lañ fi si biir lii dema réew mi dinañ ñëw si loolu suñu fa bàyyeekoo nag dinañ dem xool opportunité bu nga xam ne nag moo doon play Euh, lii di ama test game seen diggante ak ñi di Morocco euh, dinañ xool tamit waali daan euh, am na play boo xam ne jamono bi offload nañ ko foofu si biir lii di ama Amérique dinañ xool mbiram dinañ xool tamit rek BK Milan si fundraising bu nga xam ne ñu ngi ko waajal pour rek gis ne dinañ mun a am koppar pour soutenir di team bi programme bi nag fu mooy jeexee mooy Moussa Baro dinañ xool Moussa Baro Gambian player di play foofu si biir lii dema Atlanta série ita série A ligue moom nekk na ndaw lu nga xam ne tey dinañ xool jaar-jaaram moom mi di Eh, foofu si biir ama Italie eh, club am bi ak si under 23 bi ak national ama team bi eh, kon nag balaa ñuy def dara rek lu ñuy njëkk def rek mooy dinañ bàyyi ama Mr Bacha mu nuyu ñi nga xam ne jamono bi rek ñooy seetaan lii di Star TV Gambia fii si biir lii mi ak foofu sa bitim réew Bacha ñu bàyyi la nga nuyu ñi nga xam ne jamono bi rek ñooy seetaan Star TV di toppa Star TV in general. waaw Mbaye comme ni nga ko waxee delluwaat nuyu suñu gars yi rek ñu dee seetaan si Star TV bi ak suñu for émission bii nii ak nuñ amee gars nii si boppam ah. mm-hmm. ak di. santaale suñu technicien si nekk si gannaaw di génne affaire yi gars ko seetaanee comme nuñ ko buggee. waaw ñoom Mr Ba ñoom Lamine Menga ñoom ñima <laughs> alright euh, balaa ñoo dem nag euh, man tee mooy suma baat di foog naa ne daal moo gis moom bu baax <laughs> baat di waaw waaw te nag euh, dinaa ko rafetlu bu baax a baax waali daan président bi Aliou Cissé wax dëgg président na ma président bu duuf ah, ah, ah. waaw so moom lu mat call na ma waxtaan ak man ne you yaa ngi yëngu si wàllum ni sport euh, te gis nañ liggéey booy def mënuñu laa fay waaye tey sa bési juddu la euh, ñun as walidaan as di club président euh, maa la président lii président bi duñ ko wax nag waaye naa président Diouf la <laughs> waaw moom noonu la mel moom moom ba mu ñëwee ba léegi rek boo mhm. ko xoolee di nga gis différence bi diggante moom bi mu ñëwee ba léegi dafa niroo ba mu ñëwee ba léegi comme nu paama meloon rek mhm. noonu la wàllaan di delluwaatee xam nga mhm. soo man waaye daan soo bàyyi xel technical team bi tri ñoo sa daan nekk tri ok waaye léegi danañ bi am seen bi am reserve si biti ah, so pour wal naa ne moom tam xarañ caayaam rek ak gëm ko ak hmm. because moom tam moom su duggee ba léegi daf de dooli ñee si cere bi because cere bi dum tooy tooy tooy nga dooli si ñee mu gën a tooy so boo tam nañ ko sant ba pare gërëm ko si loolu rek si boppam euh, jërëjëf Aliou euh, kontaan yow bu baax a baax affaire yi duuf na euh, oh. trop rafet nañ lañ ko waa bu yeneen club yi defoon <laughs> dina dox ah. all right euh, bàcca ñëw nag si waxtaan euh, dëggantaan bi mooy mm. ama FIFA président bi ñëwam fii si réewi Gambia. Mm. Euh, ñu bari woon na mooy di force FIFA président ku ñëw réewi Gambia waaye gis nañ suñ ama oncle suñ papa yi di Pape Sène. Mm. moom nag wañ na ne non du moom am na ko fi njëkk a ñëw in 1977 waxoon nañu tur bi nag waaye mënuñoo caption yi di tur bi. ok Cavaren moo fi ñëwoon. 1977 la woon ñu gis nag FIFA président bi nag for the first time si suñ génération ñun ñu gis FIFA président président euh, ñëw si réewi Gambia euh, ñu nekkoon loo xam ne lu ñu rafetlu la te moom it euh, moom Infantino wax na lu rafet si Lamin Kababajo wax na lu rafet si football yi Gambia mu ne sax buggut ay présentation parce que moom lu mu gis rek doy na ko présentation hmm. so noo jàngee te FIFA président bi ñëw Gambia for the first time te tamit Gambia nekk réew bu nga xam ne soxla na support trop si FIFA hmm. mbay beneen bi di wax rek di gërëm Kaba ak tiimam di leen wax ne job wel doon nga teerutu bi baax na trop ba pare ñoom Kaba comme tiim bi. Mhm. seen defin lañ doon lañ wane noonu rek. yokkuñ si si dara mhm. donc li ñu defoon yëpp lañ won di président si boppam. xam nga moo tax président moom tam si boppam mu doyloo moom lu mu gis. Mhm. xam nga munoon naa wax ne comme lii ak lii ak lii ak lii because coow daf dee bari. soo moom ñoom ba ñëwee ba léegi rek. ñoom liñ def si boppam. ñoom loolu la gaay di ko wa once again congratulate ko si boppam am mhm. ba ni ku nekka diplôme nga mun a nekka te moom wax dëgg ne yaa moom kabaa diplôme la moom si boppam ba pare team am si boppam sax not moom rek team bi mu am yëpp waaw ñooñu ñëpp ay diplôme lañ si boppam so try naa bu baax a baax a baax dëgg la ñu ne kenn woon na fi 77 77 77 mënuñ si wax lu bari hmm. suñ si wasee dañoo for comme li ñoo ne history ngaa wax rek mm-hmm. waaye mm-hmm. xëy na ñun bii lañ gis bii lañ gis bii lañ gis an bii gaa yi takul nañ ko bu baax soo xoolee bii ñëwam sax mooy modern football waaw mm-hmm. ba pare xel président si yëpp ñoom ñu fa nekk si exécutif bi si boppam ñëpp am nañ rôle buñ play si si biir although xëy na Kaba ma doon jegeñ ganam bi si boppam waaye soo bàyyi xel eh, force bi seconde bi taat bi ñëpp seen responsabilité yi gars yi ne ak ajo ñëpp ñoom jël nañ ko bu baax a baax a baax a baax leen mm. congratulé na baax ba pare ndam la si ñun daal comme ni gars yi ñëwee ba pare soo xoolee speech na tam ne ndam baax a baax baax baax euh, bi euh, bu mu egsi si airport bi euh, lu mu njëkk a def rek mooy jàmmalantoo ak kii di président bi kii di Lamine Kaba Bajo euh, bu mu jógee foofu nag ñu yóbbu ko si football secretarial house bi mooy Kanifing mu dem niimee ko foofu tamit euh, bu mu bàyyee ko foofu nag dem na mit njiiti réew mi te ñëpp kontaan si ñoom ñaar waxtaan nañ si tête su xool nu ñuy mën a def ba gis ne sporti Gambia dina gën a am doole te FIFA ak government bi yëpp dinañ mën a joxante loxo ba gis ne Euh, lépp lu ñu soxla si football euh, dinañ ko mën a am euh, lu ñu def rek mooy dinañ dem xool yi lu nga xam ne rek mooy woon ñëwanteem yi FIFA président fii si réew yi Gambia dem foofu sa Kanifing ak sa State House su boobaa nag suñu ñëwee dinañ analyse lu nga xam ne rek moom lañ jàngatee si néemeeku bu nga xam ne rek néemeeku loo na ko fii si biir lii dem réew mi kon ñu dem xool élément boobu dellu si waat fii si plateau bi Euh, jamono bi ñu ngi fii si Banjul International ama airport euh, di ñëw nag nemmeeku ñëwam euh, FIFA président bi Infantino nemmeeku bu nga xam ne nag dina ko def fii si biir lii di ama réew mi pour nag ñëw seet si Gambia football ama fédération président bi kii di Lamine Kaba Bajo ak réew yi Gambia jamono bi nag egsi na wàcc na si airport bi te nag ne mu ngi safwante ak président bi Gambia football fédération ak exécutive bi si kàddu yu ndaw yu nga xam ne nag waxtaan na ko ak lii di Star moom mii di Infantino nag wane na Euh, si liggéey bu nga xam ne nag gis na kii di Mr Lamine Kaba Bajo euh, di ko def fii si biir lii dama réew mi euh, si wàll lii di développe lii di te nag ne Gambia réewukaay la si wàllum lii di développement yeneen réew yu bëri saa yu toogee si Sabina far nañ di waxtaane exemple di ko jox réew yi Gambia ba loolu war nag moom Infantine nag kontante bu mag la am si président bi kii di Mr Lamine Kaba Bajo jamono bu xam ne nag bàyyeekoo nañ si airport bi dem foofu si néegi ama football bi mooy Kanifing Infantine moom it nag indi woon nañ ko pour nag mu nemmeeku stars yi hall office yi foofu si biir lii néegi football boobu kontante mag la fa am tamit bu nga xam ne gis na ñëpp ñu foofu ñu fa xam ne ñu ngi fay liggéey te saafowante na ak moom euh, moom mii di Infantino nag ànd ak euh, secrétaire général bi di sénégalais bon euh, sénégalais ama bon kii di Fatima Samoura ñoom nag ñoo ñëwoon fii si biir lii di ama réew mi jamono boo xam ne nag bàyyeekoo nañ foofu sa ama football house bi Kanifing ñu jubal nag foofu sa Banjul si state house mooy néegi borom réew mi mooy his excellence yi président Adama Barrow jamono bu nga xam nag moom in fatti ñu egg na foofu ak président bi nag moom tamit welcome na ko with open arms eh, te nag kontaan bu mag la am moom Infantino nag lu mu wax président bi mooy eh, kontaan bu mag la am te nag ne na jàppale eh, GFF bi te nag gis na liggéey bu nga xam ne moom la Lamin Kababajo ak team bi di def fii si biir lii dem réew mi moom Infantino nag ne wañ na ne Gambia réew mu bëgg a football la te nag gis nañ ko seen kanam yi bu mu toogee si palais bi ñëpp a ngi ree loolu rek nekk da kontaante si moom te tamit gis président bi tamit nekkoon na beneen kontaante si moom moom Infantino nag wan na ne Euh, dinañ gën a yokk koppar yu nga xam ne moom lañ doon jox li réewi Gambie dinañ yokk koppar yooyu euh, pour rek gis ne euh, réewi Gambie dinañ leen jàppale bu baax a baax Lamin Kaba Bajo nag si kàddu yi nga xam ne moom lu ndaw lu gaaral foofu kontante la am wax na président réew mi ne kontante bu mag la am si FIFA de ndig FIFA président bu ñëwee kii di Infantino am na kàddu yu nga xam ne waxoon na ko mu ne xaalis bépp bu nga xam ne mu ngi ñëw FIFA dañ koy delloo si réew yi pour ñu mën dimbale seen boppam te nag ne dimbale bu mag bu nga xam ne jamono bi ngi koy am si régime kii di Infantino foofu si biir dema FIFA kon nag ne kontante la am si FIFA te kontante la am si His Excellency kii di euh, jamono bi nag bu xam ne nag njiiti mi mu doon euh, tëj ay kaadoom euh, moom it nag kontante na FIFA ne ah, bi dinañ def seen kéemtalaay kattan bi gis di ama tàggat yaram ndig jàppale tàggat yaram mooy yi fii si biir lii di ama na digganteem ak kii di jox na ko ndomanaan jaas bi jox na ko lii di ama football jox na ko lii di beneen euh, médaille foofu si biir lii di ama euh, State House euh, bu ñu bàyyee ko foofu nag gisoon nañ nag néemeeku bu nga xam ne tamit nag defoon na ko si football hotel bi foofu si biir lii di ama yundum kontante la fa am te nag woon na ne dina gën a yokk a koppar jàppale la ba gis ne football hotel boobu dina nekk standard hotel fii si biir lii di ama West Africa Mbay Kamara moo leen doon jox ama report bi si Star ama TV ama sport ama Bantaba jërëjëf euh, loolu moo xewoon Bathia euh, si nemmeeku bu nga xam ne rek FIFA presse bi euh, nemmeeku woon na ko réewi Gambia Euh, Star TV nag euh, taxawoon si euh, ba gis ne daal lépp lu nga xam ne rek ñu nga xam ne ñu ngi ñooy toppa mm-hmm. dinañ gis luy xew si ñëwam FIFA président bi ñu nga xam ne amul accès pour mun koo gis live gis nañ nag kàddu yu nga xam ne nag ni moom lañ gaaral ñoom yi neen mm-hmm. ndik FIFA président wane na ne am na kóolute bu mag si FIFA si GFF président bi mooy kii di ministre Lamine Kaba Bajo mm-hmm. benn tey rek ne kontaan la am bu nga xam ne gis na Euh, infrastructure bu nga xam ne GFF bi ñu ko doon def fii si biir lii dema réew mi euh, ñu gis ne tamit rek mu dem mit président bi ñu waxtaan fa ñoom ñaar yëpp euh, ku nekk kontaan mm. moom mi di FIFA président bi nag dañ ko président bi ne ko ne jàppal bu baax kii di Mr Lamin Kaba liggéey kat la mm. te tamit rek jàppale ko ñu nit ñu jàppale leen ba gis ne football yi Gambie dina mun a yokku te nag kopparuñ doon isi wax nañ ne dinañ gën a yokka moo xaalis pour gis ne rek ne yaa Gambie dina gën a mën a développe because war nañu another six million bu nga euh, euh, Gambie loolu euh, FIFA wane ne kontaan nañ li ñu fi gis bëggu ñoo yóbbu report moom lu gis fees na botam dina yokka xaalis bi waaw mbay mooy comme comme ni rek mooy ma ne la ñëw bi am na solo fii nii because hmm. tamit eh, soo demee ba ñu ne FIFA président ñëw na comme Gambia hmm. mbay Gambia dëkk bu neexa dëkk bi suñ dëkk la dëkk bi ñu ñoo xam neexaay bi hmm. so moom su ñëwee tam ba gis neexaay ba wax ko. dañ ko ne ko wax nga dëgg rek because ñun fii lañ bokk fii lañ dëkka. parce que miin ba pare beneen di santaatam di di président si boppam rek. Mm-hmm. république nga moom mooy chief période bi si ba pare sant yàlla ba xëy na kenn sa morom gannaaw. Mm-hmm. na Gambie ba pare wane ko ne ko yow yaay président ni loo nekka nekka président ni FIFA dëkk bi dafa président. mooy fédération président bi waaye. Mm-hmm. E, président e, e, réew mi réew mi mhm. foog ñu yóbbu la fa moom tam pour mu gis la ñu mën a wax ba pare wan moom tam football fan la mhm. ba pare moom tam dafa bàyyi xel mhm. ndax lim la lim ko wax noonu lim waxa moom nii yëpp ak fa mun a dem mu xam la Mhm. si football. Mhm. dafa lay laaj naka game bi naka football bi. because am na sample bu mu njël sax mu ne mhm. soo bàyyee xel Gambie versus Algérie stade bi feesoon na waaye Gambie against Benin tournoi baaxul waaye wiin nañ so dafa mel ni euh, right now football is more of resource comme moom loolu la doon tënkan parce que wane na ne football finance moo ko yóbbu moom si boppam waaye wane na ne since bu ñëwee things mu ngi over métti ak ñoom euh, bëgg tam ma moo tafoo tam nanga fa gërëmaat ak santaat eh, eh, président Kaba Badio bu ko xëy na mënoon naa ñëw ne ñoom liñ am duñ ko dugal seen national team bi dañ koo téye pour ñoom seen programme si nga xam ne moo nekk si table moo nekk si table bi so ñoom mhm. bu fa government kenn du xeex moom nguur kenn du xeex moom because nguur loo xeexee moom moo la ëpp doole président su ne waaw waaw la su ne déedéet déedéet ak lu fa ministre bi nekk yëpp mhm. président baa ko ëpp doole waaye dem na ñoom tam dañ dañ am understanding ne mhm. xaalis ne fa lool soo ñoom li ñu jotoon a am yëpp dañoo buub rek concentré national team bi moo tax ñu dara woon on a 23 bi mhm. pour mën a concentré si woon eh, eh, eh, a dilee bi bi gars yi di noonu fay ñu bëgg a ñu bëgg a football jotee dem si football match boobu noonu ñu bëgg a football rek ñoo dem ak ñu topp football rek ñoo dem. ñu topp xaalis ci FIFA bi nag demuñ fenn. ak ñu bëgg a place posé wuñ place. ñu nekkal si football bi parce a dem dañ ñoo win. suñu doon win 20 notes sa mbay. FID. Mm-hmm. ñu ñëw win FID ñu win Gambie FID 20 notes. ok FID daa seetaani match lu ma si neexee si ne man Gambie laa nekk. Gambian national uh, FIFA président bi ne def gis na dem na si goal project bi gis na lu fa nekka te wane na dina support ba gis ne goal project bi dina nekk very standard one uh, fii si réew Gambie waaw because mun laa explain foofu tamit ne nataal yi nataal yi mu gisoon waaw <coughs> bala moo ñëw Gambia mm-hmm. ak nataal yi ko gars yi yónnee it's different xam nga it's different ak gisaat boppam gisalaat boppam si boppam mm-hmm. ne lii la mooy time mooy time yi ah, push and pull bi you uh, know xaalis bi fu dugga dugg si goal project bi baaxul dugga na nii coow li amoon bañ suspendoon Gambia Football Federation executive bi uh, ñu gis ne président bi mu interfere wone ne du mun a am because FIFA duñu mun a suspend Gambia uh, ndig ama goal project bi te ñoom ñu joxe woon goal project bi project bi mm-hmm. wane nañ ne sacré nangut nañ report bu nga xam moom lañ indi. waaye jamono bi moom gisal na boppam. moom gis na ñaari gis na ñaari gis na ñetti différence yi. différence yi gis na ko ñetti yoon because gis na nataal fële. Mm-hmm. bi mu ñëw gis nataal ba pare mu ñëwee moom gisal na boppam. asan mel ni ba pare mbay beneen mas a gën a neex rek bu président bi di jël eh, eh, speech di wax. si mm-hmm. si eh, stakeholders bi te foofu noonu. moom Kaba moom Kaba bi moo wax. nga mm-hmm. am na yu bëri yoo xam ne fii nit ñi dañ daan wax ne comme bokkut waruñ ko def. comme dimbale team si jox leen paas nii dimbale leen. lu warul ko upgrade leen. Hmm. wax ko. ne ko dañ doon dimbale team si nii. di si kanamam la ko wooyee. ni ku déglu dafa wax xaalis bi dugal a waaw waaw dañ ko jox jox nañ team si dimbale nañ parce que soo xoolee team si. Hmm. amuñ doole. ok benn individual moo ko moom au group of individuals ñoo ko moom benn bu si nekkaat mooy three teams or four teams rek. ñoo mun a amee seen bopp. ok xëy na mooy teams yooyu ñuy wax rek comme Amfo Sports Gamtela yooyu noonu waaye yeneen yi waaye dëgg bu nekk si moom rek ak xool bu set bu amee rek xam nga moo ko may loolu noonu yëpp. ok ba pare ñun suñu gars yi ñëpp ñoom ñu fa nekk ñëpp mbay bi laay dañ xarañ nga bala nga xam ne dañ doon bala nga bala nit ñi xam ne dañ xarañ rek xam nga ñu benn studio ñu amee waaye suñu amoon ñaar oo ñetta. ñu di studio da nga gis ne fii la nañ fi Africa ko. ok si exécutif bi ñu am nii si boppa waaw gis nañ nag hmm. nekk nga ku nga xam ne nag yaa ngi yaagaa jàppase ñaari stade hmm. ah te gisuñ ñaari stade waaye foo toog si programme di nga ne ñaari stade euh, gëm nga ne dina mun a am si réewi Gambia euh, te euh, foog na ne loolu mu ngi xeeñ suroon ne Gambia dina war a amaat nu la ñu stade dinañ amaat dinañ amaat because man suma keroog bu ñëw wax foofu noonu maa dangal dangal yu métti yooyu noonu xam nga léegi-léegi nga dangal hmm. forcé rek ba pare indi bu baax la rek pour dëkk nga doo doo doo ne dara dara taa loo taxaw dara mun fay am because am na noo dee forcé am so ñaan la doon nekka rek ba période mbébét bi yëpp mooy man dañ ñaari stadium yaa bëgg ñu am. ok parce que ñu ñu US. ok xam nga baraan woon si mhm. waaye after bi ñu ne am na ko doon déglu si programme yi so bu ñu demee di Philippe Banjul ne ma na laa déglu yaa ngi wax ne ñaari stadium ma ne ko waaw ñaari stadium a mu ne ma président bi dina sampa six new stadium fii nii. six six yëpp ten ten thousand capacité la nekk. ok mu ne ma waaye bu la ko samp bu ma leen fële la ko samp waaye dina sampa six. loolu mu si projet yi président bi si boppam. ba pare eh, suñu main stadium bi. stade bi. xam nga ko yóbbu ko 20 tati waaye mm-hmm. after because duñ jaay moo doon 20 tickets foofu noonu dafa yaaga waaw mm. dañ koo yokkatu 60 au 65 capacity waaw ma ne ko yaa ngi wax de xam nga man dama wax si radio bi waaye xam nga yaa yaa a wax mm. su ma mm-hmm. si radio bi moom si boppam kon sant yàlla ba pare di ñaan rek suñ bébét yëpp ak suñ soxla soxla suñ soxla yuñ soxla si biir dëkk bi te mu nekk lu baax yàlla loo xam ne lu bon la suñu nag ah yàlla mu am ok amit oh, jërëjëf Bacha euh, yaakaar naa ne rek tamit euh, si tënkal rek loolu moo woon euh, ñëwi FIFA président bi mooy kii di Infantino gis nañ nu mu ñëwee si réew mi si airport bi yóbbu ko foofu tamit si football house bi mm. mu dem nag mi lii di ama njiiti réew mi Euh, suñ bàyyeekoo foofu nag dinañ dem xooli lu nga xam ne tamit rek euh, lu important la si réewi euh, football yi Gambie mooy vétéran football ndig waruñ ko bàyyi mu dee ndig soo déggee vétéran rek ñoom ñoo fi nekkoon dimba loolu nag waral nañu gis ñu nga xam ne wax nañu ñoom ñooy toog ñu muy neen ku mel ni Hatib Diané ku mel ni Kid Lamine Cham ku mel ni Sow ak ñeneen ak ñeneen ñu nga xam ne ñu ngi woon nemeeku woon nañ bés boobu noonu foofu sa Sénégal bi si duplex bi amoon eh, tournament mu nga xam ne ñu muy ñoom ñoo ko organise mu nekkoon lu rafet mu nekkat lu rafetlu si ñu muy neen Euh, ñu ngi tamit Bacha euh, vétéran football euh, amoon démb nga xam ne on a tuuti ba mu doon play waaye taxul ñoom amoon nañ seen maaj ñoom yi neen mm-hmm. pour rek gis ne understanding bi dina fa nekk ñoom yi neen waat nekkul rek dañuy dem toog you know am seen soft naan mm-hmm. toog waaye tamit dañ war a ñëw si biir fii bi tamit si seen wér yaram tamit mu bokk si mm-hmm. ñu indi ñeneen ñu nga xam ne bokkuñ si pour dialogue bi gën a mun a am ndaw yi. mun a jàngee si lii ëllëg ñoom it ñu mun koo def euh, loolu moo xewoon euh, foofu sa Sénégal bi si Veteran Football League bi. waaw comme ni ko koy organisé de su fekkee dañ ko organisé kay ña pour pour dimbale comme youth si si boppam. Mhm. waaw boobu moom manque bu baax a baax a baax waaye jot te dañ bëgg a firi seen main comme play noonu rek. Mhm. boobu boobu ñun gënal ñu. ok li ñu gënal rek mooy looy def te xam ne dafa dimbale xale yi pour. ñu ñu propose point pour xale yi gis. waaw a exemple nii ba pare gestuwaat dimbali gars dañoo organiser seen bopp noonu di ñëw di play pour xale yi ñëw seetaan leen noonu lañ a organiser seen tamit di joxaat dara ñoom fañ jógee ok mooy gox yu gaay jógee di ku nekk am na foo bàyyee ko am na foo ko bala ngaa ñëw mm, mm, mm, comme man fu nekk su ma demoon ba yàlla may ma xëy ne am na fu ma demee am na loo xam ne mun naa ko am su ma demoon ne ah mbay ma ñëw si Aliou Aliou Bey nga bis mu ñëw ne la ah, ah mbay suñ su ma présent lii la parce yaa ngi def lii ak lii yaa nga yaa ngi def yaa ngi ngay ci mu ngay jóg si ko yaa ngi ko génnee si biti ñoom tam seen bébé yëpp ak ñu ko koy is good ne am nañ tournament waaye moo ne bu ñu ko def dañ ko def ne dañ bëgg a indi suñu ko def pour dimbali xale yi soo lu ñu defati rek dañ mhm. si dajale waat ñu delloo wax ko fa jógee si boppam ku mel ni Lamine Thiam moom duy bàyyi suuko moom moom mhm. moom si nii bâsidé moom mu ngi si sukuta defin waaw lu kaay mën a mën a see bokka da nga ko see mën a gis si yëpp ifin bëri bi sax da ko see gis ak bokka si musique yooyu boobu tam uh, moom boobu moom kenn du ko ko wax moom waaye tam pour ñaxaat ñeneen ñi nga xam ne ñëpp ñoom ñu ngi si woon rek hmm. nañ try di démbale waat ndaw yi gox yi nga jógee si ndaw si biir right euh, lu ñu def rek mooy dem xooli euh, élément boobu euh, gis nag wax dëgg ah di nga gis mag ju daanu waaye football booli mag la <laughs> moo tey nag suñ caméra la min mi nga wax dëgg caméra na reetawe soona ñu dem xooli élément boobu dellu si waat fii si Starma TV jamono bu nga xam ne nag gis nañ amee private veteran ama league ama tournament xew fii si biir lii dema réew mi Euh, Star TV nag nemmeeku woon nañ loolu foofu sa Sénégambia euh, sa duplex Elton bi euh, jamono boo xam ne nag gis nañ ma ku mel ni Lamine Thiam ñoom Hatib Diané ak ñoom Badou Sow ñoom nag nekkoon ñu nga xam ne ñëw nañ ak pour gis ne dinañ organise tournament bii tournament bi nag war nañu soo gisee ñu organise ko pour rek mun a gën a jagar seen gu yaram pour tamit gis ndaw yi dinañ mun a roy si ñoom xam ne daal déggu ak manko rek mun a yóbbu ama réew si kanam ñoom ñu nga xam ne nag far nañ di toog di waxtaan di kaf di ree gis nañ tamit jot na pour ñu organise vétéran phénomène invite ñeneen ñu nga xam ne duñ leen mën a ñëw si seen biir euh, ñu ñëw nag seen biir pour gis ne euh, loolu tamit dina am euh, beneen jëmukaay bu nga xam ne dina ko yóbbu fii si biir lii dama réew mi opening game bi nag gisoon nañ ne team Malam team Malick team champion sound ñoom nag ñoo doon jàngantoo ak team Badou Sow Badou Sow team am nag ñoo dóor lii di Lamine Cham champion sound dóor leen nine goals to ama four foofu sa ama Sénégambia duplex si LTN ama hôtel bi Star TV ku leen fa nekkaloon mooy ama Mbaye Camara ak suñ caméraman yi Lamine ak kii di Moussa ok euh, loolu moo xewoon tamit euh, foofu si vétéran euh, ligue bi Badja gis nañ lu xam ne rek moo xew si vétéran ligue bi ndig ñun fii si Star TV bàyyiwuñ dara lépp lu nga xam ne rek dafa umma wàllum tàggat yaram dinañ dem indil ko askan bi ñu seetaan ko gis nañ nag lu xew waaye nag résource yi moom dafa xawoon nag dew kéemaan <laughs> because could you imagine team Lamine Thiam dañ ko dóor nine four dañ ko dóor nekkoon you ko doon dóor ko doon basket bés boobu waaye tamit rek you wax na ne dina mm. appeal bi ko know play you know waaye nag jël na accept resource yi good faith ne you know dóor nañ leen dóor nañ leen because ñoom dañ joxe age bu nga xam ne kenn du ko romba tamit kenn du da nga war a am age boobu noonu xëy na tati foo la gaay jëlee bu fàtt naa la age bi waaye ñu fa play yëpp xam naa ne kenn du nangu ñu yaxaarul si so foog naa ne daal dóor nañ ko rek dóor nañ ko nine dafa bëri nag nine foo dafa bëri trop waaw ah, non garaaw basi doon eh, Manchester City am nañu dóor keroog nine waaw si si si kaliko bi te boobu la gaay yi Mm-hmm. train bi neex na trop baax na trop si ñoom bi ko xam nga ñoom ñëpp ñu ngi ñëwaat together pour dem mm-hmm. waaye police tir rek su fekkee ne dañ ko def pour josam a mm-hmm. xale yi xale yi ñëw ñu seet nag la ñu mën a dimbali xale yi tam pour ñëw de because tamit xam nga da nga koo def tam pour dara dëgg la nga ko def daal ñu def ko daal pour xale yi pour xale yi ñëw seet seet suñu seetaanee mhm. ñoo xam ne waa lii fayda mu ngi ci masa bi ne pare aleel mu ngi football aleel mu ngi ci ñu mhm. ko soo xoolee ñun suñu ndaw yi nga xam ne xëy na ñu ngi wax ne prévu si premier si bi sax mhm. at least lu ndaw ndaw luñ ñëwee nii mooy dañ dee mën a ñëw def dara am si dara te da nga ko dee mën a gis seen gars yi seen ma ngay ñaanaa daal gars yi daal ñoom vétérans si ñoom ñoom caar ñoom xatee ba ñooñu mm, mm, mm. nañ dellu xamati ñëwoon na sax waaye dafa niroo ko delluwaat ni na ñëwaat dafa war a ñëwaat dafa war a ñëwaat dafa a ñëwaat suivi su boobaa dafa war a ñëwaat waaw su ñëwee mu bokkaat feneen rek kon Aliou Bey ni mu nii ba na feneen bu ko soxalee different wàll daan for the past three four five years nga xool wàll daan léegi ɓayde tin def fansi ɗe ña top ɗum gandu fansi dan toppe gaay before mhm. noonu la leen fansi di toppe léegi ak sabari fi na toppa and am doole a ñëwaat even war a am seconde division team daf daan am dafa war a am third dañ ko war a sotle am sax so ñoom fa mu am mbay fa mu am ñeneen ñu ko door foog mu am. te Thiam si la war a bokk. bari na noise de bari na noise bari na coow bi ko xam nga communauté moom noise rek la. Hmm. yow doo ma jiite man bëgguma jiitu. ok xam nga soo yooyu yéen ko jël nga tëye ko ba ngeen taraay nag kenn jiitu ñu taraay ñu am ko nga xam ne su ko na delluwaat fu mu ne xatib nga dellusiwaat si team. dal nga ñëwaat bokka bokkoon nga ci xam nga naka la mel ñu walaat. si boppam. suñ euh, suñu bàyyeeko foofu tamit dinañ dem xool lu nga xam ne xewoon na si réew euh, bi mooy on a 23 bi play ñaari fan yi football euh, mm-hmm. two days football mm-hmm. mooy woon si ama Sunday bi ak Wednesday bi first bi dañ duroo one one last game bi ñu ñu win Morocco one not xam nañ nag amaluñ dara la ñu playal mm-hmm. Morocco ñu am lu ñu playal because ñun dañ withdraw si on a Olympic qualification bi waaye noo jàngatee ndaw yi nga xam ne gis nañ Omar indi na Euh, combine ak li di Moroccan team bi first game bi ñu draw euh, second bi ñu gis Kayra ku nekkoon bokkutoon si first team bi waaye second bi mu ñu euh, mu scorer leen ñu mu mën a jox si ñaari game si nga xam si ma ñaari assessment a def si game bi rek mooy su ma xoolee xëy na néew si dañu seetaan si because néew si ñoo am lu ñoo compete si boppam mhm. because ñoom seen game plan si yëpp dañ play both Eh, ñaari legs yëpp ànd ko gars yi bu ko ok wan ñoom ñoo nekkoon awee dañ doon defeen mhm. soo xoolee ni ñu doon play da nga gis tout mu def tactical play mu ngi ba bool yaa waaye wenn lu comme ñoo nekk home mooy second match bi ñoom ñoo nekk home ñoom Morocco ñoom Morocco mhm. xay kenn chance sax pour mu am loo dawalee pam-pam songa rek ñoom dañoo am boo sax ñu wax boobu da gis ne ñii am nañ seen game plan both home force bi xam nañu dañ dem away second bi dañ ne ñoom seen home la soo ñun du ñu attaque rek defenuñ dara dañ doon puus dem nga ros nga am boota ñu ros la saxum rot nangu maaj bi tout tout xaat dafa tem soon torop waaye tamit foofu tamit ni nga gis ne suñu booy si style ñu ngi focus na ñoom lii lañ bëgg a def dinañ ko def waaw waaw dañu bëgg ko def ñoom kay ra ñooñu ñëpp yees duñ play gis nga si different ba pare eh, Omar waaw guut change na certain players bàyyi fa certain players na because play Pa Omar moo delloo ak Salifou mm-hmm. ba pare nga amaat Pa Omar Diop Drogba ak eh, waaye beneen numéro 9 bi turam laa fàtte sax moom ñoom ñoo dooroon waaye di sax dafa ceeñ indi Kayra ak numéro 9 bi. ok ba pare indi Layfis. Mhm. mooy Abdoulaye Sarr. te Lay dafa nekkoon si benn si dafa nekkoon si benn waaw mu indi ko. Mm. ba pare delloo. Mm. Mm. bàyyi fa bàyyi fa Salifou. ok foo baag bi la ak goalkeeper bi. ak ñaari eh, holding yi. asan mhm. nga si beneen ceeñ waaye after mu ñëwaat ceeñaat play ñu doon play lu ñu war a play si boppam mooy li nga wax rek ñooñu ko solo waaye tam moom tam Omar coach bi si boppam ak technical team bi ñoom tam mm-hmm. seen own game plan ñoom ñu ngi ko doon play di seen naka gars yi di play te ñoom ñëpp am nañ ko ñoom ñu am nañ ko waaye naa mënu ko ngaa wax ne xëy na seconde leg bi amuñ win bi amuñ win win waaw waaye am nañ lu gaay solo lu gaay solo am nañ ko ñoom euh, mu nekk lu rafet euh, foofu sa Independence Stadium bi Gambie Morocco euh, aggregate nag gis nañ ne Gambie ñoom ñoo ko am si kaw ñii di Morocco mm-hmm. two goals to ama one fii si réew yi Gambie Morocco nag ñu war a play si ama Olympic qualifier bi Gambie nag amul dara la ñu playal good partner lañ diggante Gambie ak Morocco mm-hmm, mm-hmm. loolu mu waraloon test match bu am du benn yoon nag mu am xamoon na amoonaat na te nag dina far a continuer Gambie ak ñi di Morocco euh, suñ bàyyee ko foofu nag dinañ dem xool euh, lu nga xam ne rek moo xew foofu si Walidan Football Club Euh, comme nu nga xam ne gis nañ ko seen official page bi waali daan nag war nañ ne euh, Moodu Ndaw euh, ñu gën ko may di Kap la wala 20 mm. ma player la moom nag moo sign si major league ma soccer ma team bi ñi dema seetul Sounders FC foofu si biir lii dem Amérique war nañ nag lii mu ngi xew for the first time si kii di Aliou Bey bu mu jëlee lii di club bi te nag war nañ ne emu si kii rek am na yeneen ñi nga xam ne ñu ngi war a am indi commune si commune fan yi di ñëw bés yi di ñëw nii mm. dina am yeneen ndaw yu sign contract foofu si biir Europe ak Amérique jàngatee Gambia on a 20 ndaw bi dem play si major soccer league bi. waaw moom ndaw moom tam good defender la. li mu wax man wàllu laata dama waxoon ne seen three back defenders yi yëpp ñoom ñëpp good players lañ. nga ne ma ne xëy na kuñ si mun a select rek war ngaa mun a play ba nga doon seen seen last match bi sax nga doon saa beneen beneen defender bu am height si second half bi. kon tam is a good player moom tam moom si boppam. defender boobu noonu they have good defenders they have good defenders waaye comme mode bi xëy yoon bi waaw mm. moom naka ko yàlla defal mu yomba rek suma because mun mun am moom mun na ko fa mun na ko faa desloo beneen mooy xëy na yokk ko ko ñaan rek nga tam ñun fii luñ miin mm-hmm. ñaan tubaab yi xamul ñaan waaye ñun xam mu ko dem fii waaye jaaraama daal job wel doon waaye tam sant ak gërëm bi yëpp mm-hmm. pour wàllu daal mm-hmm. si Fodé Balla nekk ak Alaaji Boy mooy coach yi mhm. mooy team manager bi ak coach bi ko Fodé ak alaaji bi moo métti yëpp ñu ngi toog waaw ñu nga toog Fodé bu noon Fodé Fodé bu ñu am bu ñu euh, play against mm. euh, mm. euh, la woon KG five seen substitution bi benn substitution la ñu amoon waaw moom laa laa wan moom laa laa wan waaye still ñoom ñu ngi ko fa téye rek mm-hmm. xam ne ñoom seen team la dëgg la Fodé teamam la alaaji teamam la waaye dag di am sa team sax nga bàyyi ko fa nga dem feneen soo demee muy xaw a ñaanga waaye style ñoom dañ ko fa téye ba ba ñëw yàlla ñëw fekkaleen fa Aliou Bey ñëw waaye Aliou Bey itam su ñëwee itam moom tam waawaa laan la because area boobu ku fa dëkkee ñoom soo xamee Banjul ku dëkkee area boobu rek waaw waaw lan den nga ñun suñu boo soo fa dëkkee waa port nga waaye soo dëkkee site eh, o bi mm-hmm. booy box pa area bi compound area bi noonu 95 mm-hmm. mm-hmm. percent bi yow waal daan la so it's good ne Aliou delluwaat bi tiim yi ñëwaat na soo bàyyi xel team bi ñoo ëpp fu nekk ñoo nekkagum force ñoo toog lig force mm, mm. so pour wala ne différence bu fa nekk soo ñëwee salaan si wàllante da nga xam ne différence moo fa nekk si boppam comme wàlla léegi amuñ mbay simi vest ëllëg bàyyi sa sol ko sa ndooma nga amee sa ndooma nga amee mu nekk lu rafet bu lu correct te loolu dafa tax ndaw yi gën a xam ne waaw number fifteen bi kii Kaba la number six bi uh, Mbay la seen tur moo fa ah, nekk. waaw soo lu rafet la soo foog naa ne yeneen team yi war nañu mën a roy gaay. waaw waaw waaw bari na fi sax waaye is good ne waalaan am nañ lii. Mhm. waaye still rek di ñaanaat rek comme nu ko eh, Aliou waxee président bi si boppam moom nu nga ko waxee rek yal na ñeneen ñeneen ñeneen si rek comme ni mu ko mbébétee ne xëy na ñeneen ñu ngi war a dem. an sa miin nii yàlla yombalal ko gaay pour mu dem xam nga ñu suñu dëkk bi gaa mi dafa ne. léegi-léegi mu dang léegi-léegi mu yolom yolom waaw waaw waaye di ñaan rek yàlla miyaat leen mu gën a ibee ko si baax waaw gën a yolom bu parce que dafa dafa dafa dafaa dimbale président bi si boppam comme Aliou bi comme nu mu ñëwee mm-hmm. dañ na mu ngi Spain fekka Fodé ba mu fa woon Aladji ba mu fa woon xam nga parce que ku nekkat ay boor la football ay boor la fa mu am ñu la jàppale nii am ñu la jàppale nii rek so pour mu mun a dem parce que yow mu la téye def boor defan rek non du mun a dem waaye di sant daal di gërëm daal moom ni mu ñëwee après di yokkal ñoom Fodé Ba ñoom Alaaji Ba ñu ngi naa jàppa rek comme ñaa po jàppam dem ñëw ok place yi ñoomee yaa suñu demee rek dina yomb si boppam alright jërëjëf Bacha euh, ñu ñëw nag si BK Milan balaa ñu ñëw si Moussa Baro mu nga xam ne moom la ñu war a profile Moussa Baro moom la ñu war a profile xool jaar-jaaram foofu si biir Italie Euh, jamono bi nag BK Milan moom it euh, su lu gàtta rek euh, amoon nañ ñoom it lu nga xam ne jamono bi ñu ngi koy waajal fii si réewi Gambia mooy fundraising night pour rek gis ne dinañ mun a am xaalis pour mun a sustain lii di club bi ndig sign nañ one of the top calibre coaches fii si réew bi mooy coach Alaaji Sarr te xam nañ ni du xaalis bu ndaw la ñoo fay kii di Alaaji Sarr ba loolu waral na ñu xoolee seen banque si xam ne is going down mu ngi reet ñu ne lu ñoo def rek mooy ne lëkkaloo ak yeneen partners pour indi kii di Wally on the 14 Valentine pour mu defal leen a big fundraising night lépp lépp lu ñu fa am rek dinañ ko delloo si club bi pour support lii di club bi waaye nag on tatin wala dina amee football match digganteem ak vétérans yi jamono bi loolu moo nekk di xew waxtaane woon nañ ko far di gën a a yi comme ni ko gaa la ah bàyyut kenn du bàyyi du yi du xale la moom dëgg la de comme ko lu ma ko retaan balag la kola bi so yàlla na ko yàlla mayee noonu rek mm-hmm. pour mu dem it's good ne mais eh, bii kay mi naa ñoom la ñuy xalaata ñu boppa ne waru ñoo yaakaar GFF GFF lu ñoo dimbale li ñu dimbale yëpp ñu ñoo moom suñ team ñu dañoo dañu war a góorgóorlu seet lan la ñoo gaada pour ëllëg si biir mm-hmm. parce que miin ni dégg la GFF ñu ngi dugal xaalis ñu ngi dimbale ñu ngi joxe transport ñu ngi la jox xaalis booy dooree yooyu noonu because président bi wax na ko keroog ba pare waxaat na ko fi président bi mu ñëwee mhm. waaye nga ñëwaat si diggante buñ génnee bi ñëw rek nga diggante bi Camera ñu ngi organise programme pour mun a sustain seen team bi because am na yu bëree bëree bëri yu yu gars yi war a mun a def si team bi te amuñ xaalis so naka ne mun a am xaalis eh, di e si boppam aus co moom mu a si football ñu ñoo si war a téye mu taxaw. bu baax a baax parce que dañ war a dañ war a sotle sotle bi mooy dëgg la xëy na ñun ñu dem comme suu o daan ah, waaw ñun bokkuñ waaye waaye war na ñu a ñu jàppale bi yëpp mooy hmm. naka la ñoo contribuer contribution rek mooy naka la ñoo jëndee ticket loolu important la because mayo bi euh, mayo KMC bi mm. moom mooy chief bi moom buñ ko yóbbee maa ngi toog waxtaan nañu moom you know mu ne moom bokkul si yooyu waaye when it come to youth gannaaw mm. youth lañ wax te biir KMC la nekka mm-hmm. moom dina fa dem you know dina fa dem teewee mm-hmm. moom asona dina teewee te dina def lépp lu mun ba gis na jàppale na ñi di biir Milan te ministre youth and sport tamit mm-hmm. dina fa teew euh, moom it kilifa la warta bokka ñëpp xam nañu si doon leneen la du fa ñëw ndig ne foofa ñëwee di nga gis xale yi nu ñoo solo waali nu moo fecci yeneen fecc yu ñaaw you waaye non solo may sa solo yu baax na de. ah baax xale yi ñu solo yu baax na. ah ok na la jaafa rek. kon boobu kon jaafee su du dara yow ñëwaat rek def li nga war a def rek. dem dem sa yoon. waaw dem sa yoon. après ji président bi euh, exécutif yëpp nañ ñëw. soo bés bu rëy la bés bu rëy la moo tax ñëpp ñoo si war a jaafa. ñun hmm. ñëpp ñoo si war a jaafa ba pare xam media bi su boppam. waaw te bési Star Star FM dañ ah. si si jàppee. dégg nga mm-hmm. coow nag léegi-léegi mu tàng be. Mm-hmm. takar naa sa bopp soo noo ko gisee. amoon moo gisee mun naa ñàkk a waaye terewul na soo jaaree boobu ko ñu jaaree boobu ko ñu beneen boobu ko ñu mën nañ fa dajee soo suñ fa dajee rek mooy lu ñoo def rek mooy yéen ñu ngeen si jàppee na si ñeneen ñoo jàppee noonu even soo leen saa ñu contrat seen programme su ndaw yi ngeen di am benn benn programme du ndaw waaye ngeen di am benn def si sa ñaari cadre su la gars bii kay Milan ngi am waale waale ngeen ñëw bii kay Milan ñu am waale waale ngeen ñëwaat rek sax man jógee suñ programme boobu mm-hmm. ma demee sax am na soo bi nii am nañu si sax bi ñu gëstu ko ne ma ne ha ɗo nen yuso minen no moom faran maale ɗa waade bila haar so hanga amagum wa keena waaw so noonu lañ ko maquette rek dem tara de waawi nañ tara ñëpp ñëw su ñëpp ñëwee rek baax na si boppam waaye terewul ba suñ jigéen mhm. xëy nañ sant ñu mën a sansee rek non Wally dafa jaay boppam a sansee rek door nañ di ko xeef fii si Star TV ah. <laughs> may dem kii dem <laughs> <laughs> suñ bàyyee ko foofu nag ah, waaw ngi ci a mi daal ku bugg rek mu dem ah, euh, la kontaan na bu baax a baax euh, waaye ñi ma dina dem de moom hmm. su demul kenn du dem waaw euh, Mister na loolu soo gisee ñu toog fii di wax ñoom war a ñoom ñoo a jiitu sax waaw ñoo war a jiitu pour ëllëg si bi tam suñu ñëwaatee amal fi programme suñu wax affaire yi soyu waale bi. Ah. di wane. Eh, eh, eh, image yi naka la ñu rafet ñoom ñu génne ko bu rafet. ok ah. euh, jërëjëf jamono bi nag euh, lu muy def rek mooy euh, si jeexantaal ji. Mm-hmm. Moussa Baro Gambien player bi. ndaw loo xam ne bëri na fans car macha allah mm-hmm. ñu bëri di xaar ndaw li fan la war a jëm si wàllu footballam di gis nañ ki di Moussa Baro kayiti xibaar yi lam-lame woon nañ ne Chelsea soxla nañ ko Tottenham Hotspur soxla nañ ko tey Moussa Baro boobu lañuy ñëw xool jaar jaari ndaw raw loolu muy play foofu sa série Italian League bi mu nekk ndaw bu nga xam ne gisoon nañ si Europa ama League bi score na fa góol yu takku eh, foofu si biir lii di ama Europe eh, mu nekk ndaw lu nga xam ne nag indi nañ ko si on a 23 bi pile woon na mus ko mu bàyyi ko foofu nag ñu égal ko si national ama team bi euh, against Morocco euh, mu defal lu rafet tamit euh, moom mi di Moussa against Benfica against Benin tamit ñu woon na Bacha Moussa Barrow la ñuy xool tey gestu ko xool góol ñu score si ma Italie si on a 19 bi ak si bi xool tamit rek présentation bu nga xam ne club bi defal na ko ko xool ko tamit game bi nga xam ne play na ko si on a bi xool tamit rek ambiance bu xam ne ndaw li amoon na ko buñ ko ooyee si national team bi loolu yëpp la ñu ko woon comme nu nga ko waxee rek mbay moo tax sa pré sa sa sa baadé bi nii. Mhm. président dañu war a bay ñu teg ko fii. non gars yi waaw yii yëpp yii yëpp dafa baax si mhm. si si nit ki itam nit ki tam su defal yenn yi tamit mhm. man dama tam foog nga def yenn ñaari boor la rek xam nga nii mbaa nii la rek soo sa baadé du forcé nag suñ ko déggee tey sax te ñoom ñu seetaan ko war nañoo at least sa indi benn benn président suy watabatu sa garaawul ah, mun nga si def noonu nga ko daan dañu xam ne irrigation bi kii la because yaa ngi def lu baax a mm-hmm. baax a baax mm-hmm. Mm-hmm. pour gars yi because last time indi nga Omar Colley this time indi nga Moussa Moussa Baro waaw Moussa Baro moom eh, eh, soo seetaanee soo toppee Moussa Baro si boppam sin fu moo play ak ñu dañ amoon dañ amoon reserve team tournament reserve team tournament mooy su fekkee ne comme sa team mu ngi registré comme ay thirty players ou forty players yaa ngi ko amee waaye thirty players nga di registré soo sa team yooyu ba lañ dee dem so dee bu ñu déppi de étude nga registré soo soo registré éssin aw saf taat yaa nga yaa nga gisee soom soo soom yooyu duñu dee bëgg a ñu luus seen training because soo training lu mu tuuti war nga mun daal di play mm-hmm. soo ñu daan play reserve team soo yi bu yàggoon ñoom ñëpp dañu play si team boobu noonu seen seen reserve team bi Alex Kalasa soo ko laaj ne la sa waa waaw ñoom jànku ba fa nekkoon am nga wax dañu am bii team ba pare am am académie so ñun suñu staff team bi académie lañu daan play ba pare bi lañu daan nga ñoom ñaar suñu dajee oh, dafa am na musuñu xamante te dañoo play play boobu soo soo taanee soo toppee Pirinto foofu noonu fa laa dégg sa gars bi ko Pirinto Moussa Baro Pirinto from mm. foofu soo ko toppee ba mm. léegi nit ku am wursa gi fan sax parce que parce que gars ko xaw ma nag ban rapport la am ak ñoom digga la waa waaw digga la waa state la waaye nekk waa place waa gox rek doo seen miin na ñëpp parce que Moussa dafa dafa even ba pare boo yokk Hawks support soo gisee Hawks bari man su ma su ma gis-gis soo gisee Hawks bari support state ñu def supporté Hawks soo bàyyi xel soo leen compté teri mm-hmm. ko bi yaa from state de kaa def man na ma jàppee ne print boobu moo ko fa bàyyi ok moo ko fa indi ba pare moo ko fa bàyyi ba pare style gars ñoom ñu si ansa miin nii ndoobu am wërsëgi fan sa nii tamit ba pare dafa mun a pili euh, léegi lu ñoo def rek mooy dina dinañ dem xool euh, Moussa Baro euh, bu mu bàyyee ko Hawks dafa dem Italie si under 19 bi def fa jaloore bu rëy mm-hmm. ba loolu waral ñu ajos ko yóbbu ko si ma Serie A team bi mm-hmm. kayiti xibaar nag ñu doon lam-lamee dinañ dem Tottenham Hotspur dina dem Juventus dina dem Chelsea waaye loolu yokkute ndaw la Tottenham Atalanta nag yàkkamti wuñ ko wax ne nañ leen a xaar mm-hmm. bés bi dina ñëw Euh, dañ dem xooli nag euh, ndaw li Skona euh, góol yu garaaw foofu si biir lii dama Italie mm-hmm. xool ko tamit rek ñëwam présentation bu nga xam ne defal nañ ko ko si Italie mm-hmm. xool tamit rek under 23 góol bu mu scoyoon against Morocco ambiance bi joy bu mu fiiloon bu ñu ko ooyee si national ama team bi mm-hmm. dinañ ànd ak suñu gars yi rek mu xooli élément boobu delluwaat fii si Star TV ak kii di ama Seasons come and go like thoughts of you Like a wave returns to the sea into the blue May change but in a cycle that I can't lose Each painful but delightful to live through You came into my life dressed in goodness season Nothing just a time just like your the sun gives into the moon into the night Time continues marching, it slowly crawls With each new one Musa Barrow win possession. Musa Barrow and it's a goal for the Gambia. It's puts the Gambia into the lead and coach Omar Cisse gets his first goal of these two international friendlies courtesy of uh, the Italian base. Hey! alright euh, jërëjëf Bacha loolu moo woon euh, lu nga xam ne rek mooy jaar-jaari kii di Emma Moussa Baro euh, nekka ndaw lu nga xam ne Gambian player la gis nañ lu nga xam ne rek def na ko foofu si biir lii di Emma si on 19 bi gis nañ tamit lu def foofu si Serie A bi ba loolu waral nag ne coow li bëri trop ndaw li team si nañ ko jëli foofu si biir lii di Atlanta mm-hmm. ah, ñu gis tamit rek kontaan bu mag bu nga xam ne am na ko bu mu play on 23 mu jogee ko foofu ñëw tamit au national team bi you know mu toog si mu taxaw am na ñu nga xam ne ñoo ko fa mag ñoom yëpp muy taxaw di fiica mm. so foog naa lu rek mu ngi wane ne am na ko mm. ah, jamono bi noo mun a jàngatee Musa jaar-jaaram from Hawks mm. Atlanta under 19 ba Serie A bi ñu oo ko si under 23 bi eh, mu ñëw si suuna national team bi mu am ambiance ak boppam ak place yi stade ko si comme Hawks nu mu progressé bi aga si team A rek mooy mooy li ma jot a expliqué nii rek si from the reserve team si team A bi xam nga ba pare nekk first choice player ba pare nekk scorekat tamit. ba pare agent ñëw gis la si diggante bi nga yow bi nga rice la de agent gis. xam nga ba pare yóbbu la nga wane sa bopp tamit ne waaw yow si li nga play yëpp. Mm-hmm. li la kii gisee mun nga ko because from under 19 bi. mu doon score moo góol sax nga mel ni yàlla may ko moo ne mooy Iboy Iboy mm-hmm. sax nga moom tam invité nañ ko Iboy ko Moussa Bara dañoo wax rek mooy wërsëg bi mu si moom mhm. ba pare wane na mun mun mun mun munaayam bi beneen bi rek mooy eh, li ñu wax rek comme suñ suñ yàlla coaching conseil lu mu métti métti ak lu mu neex neex yëpp leena rek la nit ñi la la coach bi day laaj mooy discipline and discipline dafa ëmbal lu bëree bëree bëree bëree bëri ba daal maanaam mooy yar te yar bi dafa ëppal lu bëree bëri because si kanam nit ki soo si yaroo rek mhm. mun defal la lu bëree bëree bëri ba pare nit ñi dañ laa yokk a ñaan ok xam nga nit ñi dañ laa dimbale ba pare moom progress na bu baax a baax a baax mais léegi aga si under 23 bi mhm. am góol su ko ko ñu ko si ni si senior squad bi mu ñëw play soo gisee ñu eh, pousse ko noonu si kaw muy tàccu di fecc noonu tradition la foofu noonu loolu mu laa wane la kii mooy jong player bi nekk foofu noonu ba pare ñu xamal la usine mooy. laay laay waaw laay waaye ma ñëw ñëw fay xale yi. ba pare ñooy ñu yi ñëw. du ko Aliou dafa mun a. a wax foofu noonu xam nga pour wane ne ñoom soxna ñëpp dañ la bi ko xam nga am na si benn fu ko waxee. waaye tam soo waxee laay mu ne mu laa xam ne mag yi fa nekk comme ñooñu ñëpp dañ la dee muna a welcome waaw open mind especially Ibrahima Sona moom waaw moom moo dee jiitu moom moo dee moo dee jiitu moom baax a baax a baax because wan la open si gaa yi foofu noonu rek mooy waaye yooyu yëpp yar moo la ko de may mooy discipline muñ de wax waaye su ma óolee yow su ma ñëwee si yow da nga rof o da nga xaw a tànga na yu bëri mënoon naa ko de o yu bëri mënoon naa ko dama ko dama naju ak man dama naju because ragal naa dugg si yow mun naa mel ni yow waaye na fu ñu toll noonu bëgguma mel ni yow so dama ragal a ñëw si yow dugga si yow because moo duggee si yow ni nga mel noonu laa mel mhm. te da nga tànga dama tànga soo ñëwee foofu wane sa yoru nekk xale tàng da ngaa teel a da ngaa teel a dem wala ñoom laay bi léegi ñu ngi si within di national team si bracket bi twenty three twenty eight comme mm. senior squad mun nañu dugga fu nekk fu nekk lañ faa dugga waaye am na noo doon mel doo fa dugga dafa am foo am fu nga bloqué nga dem waaye comme moos nu moo play nii rek ñu yokk ab ko ak moo si dinañ ñëw dinañ ñëw sentiment te ñooñu style yi dañoo fees fa tepp mm. fees fa tepp doo sa daanee eh, eh, ifin Red Hawks bi sax seconde division wan naa soo compté fans yi fa nekk yëpp ninety five percent bi stade lañ jógee lañ dañoo jógee foofu ñu ak ñu am nañ ak Ibo Town area bi yëpp am nañ fa mm. fans mm. bari nañ fa tam waaye nag loolu yëpp mbay neexul ba neex rek. Moussa Baro. waaw Zabi. ñooñu la. catégorie boobu la waaw ñoom ñoo ko fa sampoon. Hmm. foundation la bu ñu fa sampoon te dafaa dem because like bi ba léegi mu fa. soo indi nañ fa nit ñi bàyyi fa nit ñi dem waaye still nit ñi ñooñu ñëpp ñu ngi toppatoo because of moom. moo tax national team bi ñëwee daf day ñëw mooy beneen bi ñëw rek mooy ñu ñaanal ko rek xëy na xam nga comme ñun ñu ngi wax. soo àggu si soo àggu si premier cible rek. <laughs> dafa mel ni demuloo fenn dafa demuloo fenn waaye itam sant bañ nekk si benn boo xam ne. ñun nañ ko di seetaan. ni ñu lañ ko di seetaan muy italien ligue bi. play ak Cristiano Ronaldo. ñoom yaa ngi yaa ngi score xam mm, mm. yaa ngi score pare eh, communauté bi nga dikka sax. still ñu la like. ok das means ne kon am na leneen leneen lu mu def mooy loo ma waxati rek soo dematee bay am soo soo mëntoon a am bay am. waat soom si communauté bi nga déggee. parce que boobu nga jegee. te moom nag te moom nag mu ngi delloo ah. waaw si neexaay si naxaar yëpp communauté bi nga communauté bi nga déggee ñoo la jege. te def na lu rëy ah. dañ ko waxul rek waaye. waaw yooyu yëpp dañ ko war di wax mbay. parce que xam nga tamit. Mm-hmm. mu ngi mënutoon am mu ngi am. ba pare mu ngi koo delloo. comme tey ña man soo ñëwoon ne ma kan moo doon def kan moo nit moo nit nga laaj moo ko sax man kuy def dama laa mu ngi def. diw sangam diw sangam sa tur nag. waaw xam nga ne defuloo xam nga ne defuloo waaye tam du ne du ma la wax ne yow defuloo de waaw sa tur la waaw waaye naa tudd tur su fekkee ne Ousmane la naa tudd Ousmane su fekkee ne Fatou naa tudd Fatou su ma tuddul Kéba bokkul ci waaw yaakaar naa lu leer na mm. euh, loolu leer na ba tax na nag foofu lañ ko doon euh, ma emale li sport bantaba bi waaye tamit ne bàccat duñ euh, fàttaliku ne di jot naa lot of calls si Senegalese players yi suñ gamee ndaw yi nekk in Sénégal mm. because dafa mel ni den tey daal soxla nañ interview bi because of always waxtaan naa ñu bëri si ñoom mm. waaye luñ ma dee waree mooy kañ ngay ñëwaat pour ñu gis ne rek ne you Euh, dinañ mën a waxtaan ak yow gambien si dañ mën a gis ñun lu ñoo def fii euh, tamit ko gis si wax leen ñun suñ dëkkuwaay fii ñun ñu wax leen ñu dëkkee fii mm. te nag nu réponse moo leen rek mooy ne incha allah euh, dinañ ñëw teexa teexa la woon rek mm. xëj na yàlla moo leeral toon yoon bi mm. mu ñàkk a mun a am xëj na moo si ñun waaye ñu ngi koo planaat pour gis ne dinañ leen fekki because soo toogee ndaw bi di la call in time di la yónnee message ne you know yaa ngi ñu ngi fii sa néegu lañ so léegi-léegi dama ko dee fiit waaye nag pour asoo ne aso dina ñëw euh, in Sénégal euh, xool loo leen fa nekkee euh, ndig ne bii moo war a nekk tri édition bi waaye nag ni mu am gala mu am gàllankoor mënumaa jaala féeri bi waaye nag dinañ jaali féeri bi nag waaw may dafa war dafa war because lii tam eh, eh, yokk ñaan rek la comme mm-hmm. waa comme cere ji daal mm-hmm. su amee ñe sax te mu see yokk a ñe yokk si ñe te li ngaa def nii rek mooy eh, yokk nga si ñeere si boppam because soo demee tam ba suñu ñeneen gars yi nekk si outside the area waaye si benn community bi lañ nekk ah, ñoom ñëpp waaye Sénégal bi rek mm-hmm. soo mm-hmm. génne nañ si beneen boobu dem fii just step la rek nga aaga mm-hmm. so dama daan appilaar rek ñu ñu ngi am boos ay boos yoo xam ne ñu ngi si football fraternité bi comme suñ président bi comme Lamine Kaba yooyu na di mu ngi koo seetaan yooyu na comme mbay la suñ place lañ uti because ñii ñëpp suñ players yoo xam ne la dañ suñ doon solo national team dañoo ñëw an ñoom xëy na ñu ngee saakule na mooy naka la mbay mën a ñëwee pour kooba yenn event si nga xam ne ñoom ñu ngi koo def ak seen téxa téxa yeeg yi gars yi am foofu noonu ak yi nga xam ne gars yi amuñ ko sax yoo xam ne neexaay bi ak baaxanee bi yëpp ñu mun koo wax a yow comme discours ko yow xëy na nga vidéo ko indi ko comme jokko président mu gisal boppam mu ko boppam coach bi tamit jokko wala mu gis waaw ñooñu although Sénégal waaye still Gambia Football Federation. because maa ngi remember maa ngi remember bu ma fa demoon. Uh, yokkute woon la si moom ah. because uh, bu ma fa bàyyeekoo am nañ mm. almost four five players yoo xam ne oo nañu si national team bi. Uh, Assane si la bokkoon. Mm. fekk ko ñaari tali. Bees yaay Bees. Mm. moom it si la bokkoon ñu indi ko. Euh, fekk sénégalais ñu ko bëgg a naturaliser loo waaye bu ñu demee intervenir waxtaan ak moom indi ko fédération bi euh, ñu xoolaat ko bu baax a baax ñu gis ndaw li ñëw euh, te yaakaar naa yeneen ndaw yi loolu lañ gis ne foog na tamit war naa mun a am te dina am incha allah with or without mm, kenn support am waaye support laa miin mm-hmm. donc nag foog ñu am foog léegi-léegi nga am foo supporté su ma fekkee ne man su ma la supporté suma profit la o suma interest la lu mun a nekka su ma la supporté pour Gambia pour Gambia la ba pare man maa siha comme football bi. ok boo ñu ko siha man si laa bokk. man foog naa ne war naa mun a def tuuti. Mhm. su su fekkee ne comme kooku ñëw na approche ma. Mhm. kon nga fu nekk yow o mënuñoo mhm. wax ne dina la jox. waaye lii itam lii itam léegi-léegi da nga ko expliqué nga discours ko ak président bi. wan ne lii moo nekk sa table bi. ok nga sax miin waaye da nga a support mun naa am support nag si keneen ku nekk waaye itam da nga a yow nga defagum dooragum sa loxo. xam nga. Bakary Diagne mu ngi fa. ñooñu mën nañu laa jox poste seen poste yi bopp seen poste yi bopp sax Ibou Faye mu ngi fa Lanto Montamba mu ngi fa président Kaba mu ngi fa ute na xaalis yi fédération bi sax ñooñu mën nañu la gis ne lii because ñoom lu ma mu ngi fa. samedi because ñoom ñoo dundal football. bi foo ñu nekk foofu noonu. soo ñoom soo demee pour ñu jox la lu yombale si ñoom. Mm. because dañoo mm. fiil ne tamit yi yëpp suñ place leen ñun ñëpp ba pare ñun ñëpp dañu war a yokk doole mooy li ma wax gaa moo tax la eh, boobu noonu. suñ ko defee pour ñoom seen bànneex rek ne dañ ko bëgg a def rek kontaan si du dem dañ ko def pour football ñooñu ñëpp dañu war a ñëw ñu tam ci in parce li nga def nii tamit eh, eh, publicité nga leen dugal ci bare bëri fii nii jox ko sa technicien si gars dugal ko mu dem ah, yóbbu nañu àgg na fu nekk waaw léegi yaa ngi bëgg a dem Dakar mm, mm. léegi lan mooy seen quota tu woos sa programme bi nga bëgg a demal o sa projet bi nga sànca boo xam ne yaa ngi ko bëgg a def ful three years ou lan la si gars yi mun a lan la si gars mun a def pour mu développé because ñoo jël nga pili mu neex rek nga dem toog sa wér yaram la sa wér yaram la rek mm. waaye tamit soo amee projet léegi-léegi nga wax ko nag ban sama projet daal lii ak lii ak lii ak lii si loolu te loolu nga door nii dañ na wala projet la ay projet la bu bu war a dem la léegi ñoom waxuloo leen ko parce que fekkoon naa waaye yéen lan mooy seen quotas towards this project pour mbay because bu nga ko def bu leen ko defal nii nii waaye doo pli rek ne man pli naa all hands ñëw comme mooy ñoom baaj ñun ñu dem rek solo rek rek ki su rafet rek sant nga tamit day taxaw yooyu dafa football léegi yëpp xaalis la parce que li nga def nii yëpp eh, si Star FM nga koo defal so yaa ngi yaa ci ne technicien bi sax yi ne am na leneen lu mun a def te waaye dugal na mu ngi toog di Maria xam nga eh, Maria eh, ma taxaw ne ñi ñu ngi ñi ma ñi mm. taxaw ne ñi rek ñu ngi daanu nii nii nii mm. seetaan na ko même tati naa ay jooy na ko am nga yooyu yëpp tam mu ngi sa def <laughs> gis nga moo tax foog gars yi di chip in bay gis nga yeena yi mm-hmm. bul di xaasal nit wax la ko comme man tey su ooyee mbay du ma ko xooree di ko signal nii rek boo ñëwee ñu saraat ñu léegi boo ñëwee di non Epson rek boo ñëwee dafa bari léegi si dëkk bi. ok dañoo jomb. alright euh, jërëjëf Bacha euh, si gàttal rek lan ngay tàggoo ñu euh, tàggoo ñu nga xam ne jamono bi rek ñuy seetaan lii di Emma Star TV sport Bantaba lan mooy sa mu ñu leen kàddu. su ma leen kàddu rek mooy di tànk suñu si nekk fii rek. Hmm. di génn affaire si comme gars yi ñu ko bëgg a seetaanee après. programme ko programme baa ngi correct la wax xam nga ñun tam ñu ngi jënd jos kam la. waaw waaw waaw non daanaka nag. <laughs> léegi léegi ñu léegi ñëw two seconds ou three seconds. xam si woon loolu ñu ngi <laughs> fa taal kaj la nga continuer woon. <laughs> ay two seconds three seconds nag pare mu ngi ñëw di leen sant di leen gërëm. Mm-hmm. comme ñoo ko génnee boobu beneen bi di wax eh, président Kaba eh, eh, ngàcce ngaalama programme bi FIFA président bi ñëw na dem na jeex na léegi forward la ñoo xalaat rek. Mm-hmm. te bañ a xalaat gannaaw. beneen bi rek mooy stadium bi bu mu ko fàtte. ok parce que stadium bi tam mooy yokk dëgg la gars yi ngeen réhabilité yenn ay. ground si loolu pour ñu play football la waaye yu nit stadium soo xam ne. daf ñoo mun a xóosloo yenn programme si. an moom moo nekk si football ba pare football la ñoo wax. exécutif la nag ñu ñëpp foofu la ñoo liggéeyee. ok boo foofu la ñoo fay bu dee. waaye te xam ñu Gambia Football Federation la. and he so di ko wis guut la ba pare di dimbale ak bu jàppale. mbay ak FM si projet bu mu dugal nii pour mu mun a succès si boppam. Euh, jërëjëf Bathia euh, jërëjëf yéen ñu nga xam ne jamono bi rek yéen ay euh, taataan li di Star TV ama sport Bantaba mënuñoo dem nag te duñ gërëm Mr Ba kii di ama ñima mm-hmm. si liggéey bu rafet bu nga xam ne jamono bi ñu ngi koy def ndig ne mu neex mu naxari mm-hmm. gars yi ñu ngi ak ñun boo gisee affaire yi rafet ngeen mun koo enjoy mun koo setaan Mr Ba la ak ñima ak caméraman si Lamine ak crew bi mm-hmm. kon nag ñu gërëm leen bu baax a baax dinañ fi dellu si waat nag jamono bi édito bi nag Mr Ba mu ngi try whole time bu nga xam ne mooy gën a pour ànd ak lii di radio bi ñu gën ko mën a def ngeen gën ko mën a enjoy euh, kon nag dinañ leen jox dox daje ba next week incha allah waaye dinañ communiquer ak yéen kañ la programme bi war a ñëw turu euh, si suñ euh, commune sport si radio bi ak suñ facebook page bi gërëm leen bu baax a baax man la woon Bay Camara ak kii di Mr Bacha Ndiaye gërëm leen bu baax a baax gërëm team bi jërë ngi jëf